tudd ci Amadou Lamine Diallo tudd ci Abdoulaye Niam ndax nee na day bañ di leen lim sax bañ ci am ku ci fàtte boo xasee tudd kenn rek sëriñ bi ne tudd na ñëpp waaye am na ñoo xam ne mu ne su leen a ñàkk jukki tudd leen sëriñ bi ne dañoo ànd ci délégation waaye nag dañ ci amaat seen beneen ciru bopp yoo xam ne mu ne su leen a ñàkk moom sëñ Bara xam kam mi ni mu ko waxee woon bëriki démb bi xam ngeen ni mu gëmee sëriñ bi xam ngeen ni mu demee woon ak sëriñ bi sëriñ bee ko yar daan ko wax ne ko sama doom nga waaye mu liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Touba gërëm ko tofal ko mbooloo kon loolu doyoon na ab ab cër sëkk ci yéen sëriñ bi ne lii boolewuleen ak moom sëriñ Basiru nee na bi yàlla defee ñu fal leen seen ndomba tànk yi seen wayjur muy sëñ Baara Dolli day nitug sëriñ bi lool ginnaaw bokk gi ñu séq kóllëre gu xóot daa ànd ak yéen jóge ci sëriñ bi mu fekk ko fii mu toog mu ne dama lay dénk sa ñaar ñii ndax say doom lan say taalibe lan ñu ngi dugg ci àdduna nag cër bii nu leen jox waaye dama lay ñaan lépp loo xam ni muy gis nga ko nga war leen koo digal wala loo leen war a tele wala nga gis ñu def loo xam ne jaaduwut na nga leen woo ba ñu ñëw te xam na ni loo leen wax loo leen wax rek ñoom dinañ ko def nee na ñoom ñaar ñi sàmm nañ lool sëñ bi nee na jàpp ngeen ko baax. te yéen a ngi koy doxal diggante seen diggante ak moom sëñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax yàlla dimbali leen kàttanal leen ba ngeen mottali mission bi na gën a rafet nag ne mi ngi nuyu sëriñ Abdul Xuddus moom sëriñ Moodu Faati Xari way juróom sëñ Moodu Faati Xari Mbàkke doomi sëriñ Masamba ja ku ne xam ne Seex Masamba ni mu demee ak bi ne sa way jur yow bi fi doomi sëñ Tuubaa yi di ne daa laxasaayu woon ànd ak ñoom ànd bu wóor na sa maam defoon ci biir kër sëriñ bi lu nu mas a woote rek boo demee ci archive yi sëriñ Fallou yi sax am na ci wax ju sëñ Fallou di wax wax ju xóot ne keroog sëriñ Modou Faty xarit sa way juróom dagg micro noonu la meloon nag njabootu sëñ Tuubaa gi sëñ Abdul Xaadir Mbàkke at mu ne daan na ko ganale ne te noonu ñëpp noonu lañ def sëriñ bi nee na loolu kon boolewu leen ak yéen ne mi ngi nuyu sëriñ Asan Mbàkke muy sëtub sëriñ Mouhamadou Fadal ci wàllum ndey nee na moo seriñ bi ñoo bokk menn maam ca Musoobe ca Musoobe sëriñ Musoobe sëñ moo roqo yi bu so mi nuy dégg nga xam ne jarbaatu ku tedd ki la woon mooy maam nee na moo maamu sëriñ bi ñoo bokk ndey ak sëriñ bi ne li la booleeg si moom dafa bari sëñ bi ne ñu ngi nuyu ñëpp rek ne mi ngi nuyu président Mamadou Diop Decroix Mayoro bi ne mi ngi nuyu sëñ Mayoro Faye sëñ bi mi ngi nuyu sëñ Aliou Diop ak yéen ñi ci des ñëpp ne mi ngi ci rafet lu baax nag délégation bi ndax fii moom 5 heures fii seen la ci fànn yëpp mi ngi leen di yóbbante nuyoo na ci président Ablaye Wade di ko yóbbante cant ak ngërëm ak ñaan ne ñaan gi nag yàlla gën a féq aw fanam dolli kàttanam ba mu yàgg leen a gunge ndax taxawaayu président Abdoulaye Wade ci yoon wi ak réew mi lépp rafetal na moo tax kenn du ko fàtte sëñ bi ne ni nga koy sant bu baax di feddali seen diggante ñoom ñaar di ko yóbbante nuyoo ci doomam président Karim Wade sëñ bi ne mi ngi koy sant bu baax moom itam ndax ne boo tuddee président Abdoulaye Wade moom Karim Wade tàbbi na ci biir président Pape Diop sëriñ bi ne mi ngi lay beral nuyoo ndax nee na yow ne buy xam président Abdoulaye Wade ne ci yow mii la jaar yow waa kër sëñ Abdou Khadre yëpp na yow yaa jëkk jàpp ci loxo nuyoole ko président Idrissa Seck te ku ne xam na seen diggante ñoom ñaar président Ablaye Wade ci bopp itam boppam itam président Pape Diop ñi moo ko fa yóbbu woon seen diggante nu mu demee rek ñu bari xamuñu lool waaye dara génn la ci yow nee na ca njalbeen nga ba ci mujj gi nag dara génn ko ci nee na ndax yow yàlla dafa def yéen ñaar da ngeen a bokkoon sëñ Abdou Khadir waaye yow mii nag yàlla boole leen boole bu yàgg ne ba ndax yow ba ñuy tàmbalee ñëw sa kër di la gane si njabootu sëñ Abdou Khadir gépp ne loolu yàgg na de noonu loo nee na loolu 1993 1994 ba nëgg nii ne mës gis lenn lu ñaaw. wala lu manqué ci diggante loo xam ni moom mi def na ko ne 1994 mook Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadi ànd nañ fi dem ba Thiès tuddali ko ngénte muy jiili mi ki nga tudde Serigne Abdoul Khadi ne loolu ba léegi koo xool ñaataat la 80 94 ak léegi ñaar fukki at vingt huit vingt huit ans am na ko Pape Diop nee na kooko jàng na ba mu ngi liggéey nee lool loolu du tey de te loolu ne mooy li ci gën a tuuti ne bi muy tabax këram gii ci Touba bi ko sëñ Saliou Mbacke di jox pàkk bi nee na ci moom mii la ko jaale mooy fii mu dëkk tey ba mu tabax ko laataa muy àgg itam am na at yu bari am na yu bari yoo xam ne biir kër sëriñ bi ngay dal ne kon seen diggante yéen ñaar xóot na lool waaye lépp lu baax nag lépp luy lu baax lépp luy teraanga wala lépp luy jëf ju baax jëme nga ko ci sëriñ bi jëme ko ci njabootu sëñ Abdul Xaadir jëme ko ci njabootu sëñ Tuubaa bi ko ci julli di itam ndax yow tarixa yëpp nga ko séqal te sëriñ bi ne am na lu mu ci xam nag ndax sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin nee na ñoom ñaar wéet nañ wax ci yow ba tey ak yeneen kilifa yu bari sëñ président nee na ñu ngi lay sant bu baax di gërëm sa taxawaay bi ak sa jàpp ne beneen firnde sëriñ Basiru sëñ Abdou Xaadir mii la leen féetale ñu jébbalu ci moom kon nee na yow deseeloo ko dara ci lu ko war seen diggante yéen ñaar sëñ bi ne mi ngi feddali diggante bi di feddali digganteem ak yéen ñëpp nee na ngi leen di ñaanal bu baax nee na lii ngeen wax ne Cheikh Mamadou Mountakha wax na leen ci sa jëmm yow mii loolu yóbbaale na lépp ndax moom mii fii Serigne Touba li mu daa wax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Cheikh Sidi Moukhtar nee na sunu junniy kàddu sa genn kàddu gi yóbbaale na ko kon nag ñu ngi koy sant bu baax président Ablaye Wade nag nee na nettali woon na ko moom mi waaye nee na Pastef am ci Serigne Touba. nattable wu ko moom ndax wax ju ne seere da caa baax nee na élection bi muy jub si nee président Pape Diop yaa ngi toog ma Madické Niang mi ngi toog Souleymane nee na Ndiaye mi ngi toog nee na mu xamal ko ni ko waxal ma sëñ bi ne ko nee na mu wax ko ne ko nama ñaan waaye bëgguma ndigal ne kon loolu nee na kon loolu Pastef la nee na bañ tollee ci élection deuxième tour altine ñu ci sës ne président Ablaye Wade da woo sëñ Basirou téléphone tudd ci président Pape Diop mii am keneen ku mu ko tudd am ñu mu ko tudd ne ko ne ko tàggu nan ma ne ko dañoo bëgg a dem ci sëñ Sidi Muxtaar nee na pour ñu joxeel la ndigal ngir taalibe yi voteel la nee na mu ne ko dama lay yónni ci sëriñ bi yóbbantewuma la nee na bu ko kenn mën a tax a joxe ndigal oh loolu président Ablaye Wade moo ko wax fa jamono toll woon loolu sax Pape président Pape Diop mi xam na ci dara moo tax nit ñi li ñuy wax li ci bari dañ ko du xam te du jar leeral ndax looy def di ko seeral yàlla te yàlla rek tax bu fekkee yàlla rek tax bu ko nit ñi xamuti doy na euh, Babacar gay nee na dafay ñëw démb di fàttali boobu Omar Sarr la àndal ci Karim Wade bi mu nekkee ci biir prison bi di fàttali lan ca defoon doxoon nee na mu ne ko jarta leeral sax nee daal daal ne ko jàpp naa la ma ca def nee na moom sëñ bi jàpp na la ma ca def kenn defu ko ci waaye ginnaaw nag soxlawul kenn du ko xam nag yaakaar na ni ku ko gëstu danga ko xamal sa bopp waaye nag la mu ca def moom mi kenn defu ko ci ginnaaw yàlla nee na jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullah sëñ bi maam jaara faam député yaakaar kër gi mi ngi fi sëñ Assane nee na li nga def ci président Karim Wade moom mat na ci seere nee na mat na ci seere kon nag li ñu def mooy yéen délégation bi ngeen tàllal sëriñ bi ñaanal leen li ngeen bëgg sëñ Touba defal leen ko ci barke bis bi Lamine Ba teew na noo koy gis ndeysaan ak ñu baax ñëpp Moussa Diop sama mag amin amin Famara Famara Senghor gars yi dañoo maskaw amin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 téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert